منتقى خير البرايا محمدي سلاميك قلب يا إلهي بحمدي على المنتقى خير البرايا محمدي سلاميك قلب يا إلهي بحمدي ilaahi bi Muhammadi nee na gannaaw bu mu ubbee kàddoom ci sant yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na teg ci nag mi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mu ñëw bokk lee yéen lii fi xew ñu bokk ko te mënuñu ko séddoo nee na muy lenn loo xam ni dafa dal ci kaw ñépp nee na yàlla dogalit ñun ñu am ci ñaari cër nee na bu jëkk bi nee na dafa mel ni moo jiitu bi ci des ndax ak bokk fa ko yàlla tudde yàlla tudd fa woon diine ak bokk rekk la fa tuddoon ay bokk lu mel ni mel ni xewee ci ñoom kenn ku ci nekk am nga ca wàll goo xam ni yàlla moo la ko joxal boppam nee na kii fi jóge nekk tey ca ngërëmal yàlla nekk tey ca ngërëmal yàlla di sëriñ Sidi Mokhtar di sëriñ Mbàkke yàlla bu yàlla dañ di ko yëkkati ca barsaxam yàlla bu yàlla dañ di ko yëkkati ca barsaxam ku baax la woon nee na sëriñ Sidi Mokhtar ku yàlla baaxaloon la baax goo xam ni nag ñépp seede nañ ko ko kooku nag nee na kooku nag réew mu mu bàyyi ko réew mu mu bàyyi ko réew ma yépp ñoom la demal réew ma yépp lay daal di demal bokk na bokk gi itam bokk yépp la demal gi yépp yépp la demal waaye na waaye nag lépp solo yooyu yépp te mu taxawe woon ko te mu taxawee woon ko moom sëñ Sidi Mokhtar nee na moo doon diine nag. taxawu diine. taxawu ci jëf. ci ak ci jikko. ak ci jikko. yàlla li ko soob. nee na yàlla nag dogal li ko soob. li ko soob nee na li ko soob nag moom yàlla moo di. moom la sooboon. moom la sooboon moom yàlla. mu indi ko fi. mu indi fi Serigne Sidi Maxtaar. te ba mu koy def tàgguwul kenn. moom la moom la soobit moom yàlla. mu jëlaat sëñ Sidi Maxtaar te ba mu koy defit tàgguwul kenn ne dañuy wax ni lillaahi maa aata walillaahi maa axad nee na kon loolu rek moo fi xew waaye sant yàlla nag ku yàlla bind ndax képp ku yàlla bind sant la sant la nga dee ca waar wa nga santal sa boroom kon ñun ñëpp sag la ci ñun. kon la ci ñun. dem na dem na. waaye gàcce amul waaye gàcce amul. dafa am benn góor. nee dafa am genn góor. bi ko tàggee Seydi El nee ñu tàggee ko maam Seydi El Hadj mu ni ndokk mu ni waay ndokk. ñu ah, tàggee ni ko yow ñu tàggee la kilifa. nga teg ci ndokk. mu ni waaw waaw ndax kilifa. fi nekkalee yàlla. bu fi nekkalee yàlla. ba jóge fi ba jóge fi. te dara tilimul te dara tilimul. ndokk ndokk. dem gi wàññiwul dara dem gi wàññiwul dara. sëriñ bi ma ànd ak njaboot gi. nee na kon sëriñ bi ma mu ànd ak njaboot gi. Seydi Hadj Malick. Seydi Hadj Malick si Maodo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu. Hadj Mansour si. Hadj Mansour si Jamil bu sëriñ Moustapha si Jamil. ak sëriñ Mansour Abdou. ak Serigne Mansour bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu an Serigne Mouhamadul Habib bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu an Seydi Aboubacar bu Cheikh Al Hadj Mouhamadul Habib radiyallahu an Cheikh Al Hadj Omar bu Cheikh Al Hadj Malick si Maodo. nee na ñu ñëw nag fii ci kër gi. fekk jiitu nañu fi. fekk nag jiitu nañu fi. Pape Malick si. rakkam ñëw na fi démb. jiitu si ñu woon ñu ci bees bees ci bi ngir jotal njaalu njaboot gi waaye fii li fiy xew mooy liy xew Tiwaawan rek mooy ñëwu kenn ci béréb bi doyul bu ñu mënoon Tiwaawan gépp lañuy màng indi leen Tuuba waaye wuutoonte rek waaye wuutoonte rek ñëw teewal teewal ñëpp fekk fi itam nag fekk suñu mbokk moo xam ni suñu doomu baay la suñu xarit la yàgg nañu nag muy sëriñ Isxaaqa Mbàkke mii nee léegi bi mu ko gisee wax na Cheikh El Hadj Malick si Maodo ni ko ni ko sëriñ Isxaaqa de maa laa yan sarif la na mu meloon bañ koy xam noonu la mel ba léegi bu sàccee xool la sëg waaye noonu la mën a mel. noonu la nag noonu rek la mën a mel nag. dama nee na dafa wax léegi. jamono. ni am na jamono. booba nee na booba ku ñuy wax ibu kamara di commerçant. nee na commerçant la woon. nekk fii ci Mbacké. nekk fii daan fi ñëw. nee na mu daan fi ñëw. bu fi ñëw. nee na ba bu fi mësee ñëw. ci la nee na ci yoon woowu mu daan ñëw ci Ibou Camara la daan profité dem ziyaare ji bàyyam sa sëñ Cheikh El Hadj Mouhamadul Bachir Mbacké taala an soppoon ko nee na moom nag yàlla dogaloon cofeelam lool digganteem ak baayam boobu soppoon melokaanu biti nii melokaanu biteem nii rek jëmmam rek te melokaanu nee na melokaanu biteem woowa mooy biir ba moog bu biir ba wuute wuñu ndax mbokkam ma dafa wax ni. ndax nee na mbokkam ma dafa wax ni. inna zawahira. inna zawahira. wa unwaanul bawaatini. ni nga mel ci biti. nee na ni nga mel ci biti. mën nañ la ci attee ci biir. mën nañ la ci attee sa biir. budul melokaan woo xam. budul melokaan woo xam ni. yàllaa la ko nëbbee. yàllaa la ko nëbbee nag. nee na Serigne Bachir nag. rahmatullahi alayhi wa radiya anhu daan na ko ziyaara moom. nee na xam naa xew-xew bii rëy na. te lu mel ni kenn du ko bëggee. te lu mel nii du kenn di bëggee. ndax li fi jóge. tuutiwul tuutiwul de. waaye nag ci daje bii ñu daje. ci daje ñu daje. ñun nañ ko nag. nuñ bëgge nañ ko. bu ñu sañoon nag. leneen nañu fi indi. lu wuute. ak xew-xew bii. ba xew-xew bii far am fa tabaarakallaahu nee na ñuy sant yàlla tey ñaan yàlla nag ak dund ak man ba gën a mën a yaatal lii gën koo mën a jok yow nag sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir nee na nga yëg ni moom de am na ci am nañ ci yow ak cofeel lool seen xarit Muntaqa waaw mu ni am nañ ci yow cofeel lool. nee na na nga yëg ni am nañ ci yow it kóolute. Sénégal yaatuwul. nee na Sénégal yaatuwul. waaye kumpa bariwu nag bariwu fi. gis nañ la ba tàyyi. dégg nañ la nañ la itam ba tàyyi. looloo cofeel gi. cofeel nag loolu moo ko bijji. ak yaakaar ji ak yaakaar ji. yaakaar nii. yaakaar. yaakaar daan dégg. la jëfe ko jot na. jëfe lii la dal tey nag dal tey nag. fekkoon na la ci fekkoon na la ci kat. li ci yokku li ci yokku. mooy turu xalifa mooy turu xalifa rek. yaa fi nekk. waaye. waaye jëf ji jikko ji jikko jëfante bi yàgg na fi moom. ñu xam la ci loolu bu baax a baax. di la bëggee di lu baax nag lépp lu baax nag. mu am fu mu am. buy yëngu. buy yëngu. ci sa xel. ndax royuwaay la. fa tabaarakallaahu ñuy roy loolu. ci yow ci ci sag nangu ci am kilifa am kilifa. fab kilifa gi teg ci sa kanam teg ci sa topp nag ci gannaawam. fa tabaarakallaahu nee loolu tax yàlla tànn la tey. teg la ci kanamu njaboot gi. ñuy ñaan yàlla. nee na ñuy ñaan yàlla. yàlla na fan wi gudd. yàlla na sa faw saw fan gudd. yàlla na wér gi sax. yàlla na wér gi sax. yàlla na sago si sax. yàlla na sago si sax. yàlla na sutura bi sax. yàlla na sutura bi sax. yàlla na la yàlla ngëbal boppam. yàlla na la yàlla ngëbal boppam. ba li jaamu yàlla yi yaakaar. ba mbooleem lu jaamu yàlla yi di yaakaar. li seytaane di bari bari pexe. li seytaane di bari bari bari bari pexe. du fi mën a def lenn fi mën a def dara luy mën a tas yaakaaru jaam ñi. yow it njiit nga jiite nit jiitu ji nga xam ni moom la la yàlla jiital ci kanamu nit ñi. tuutiwul tuutiwul. waaye yàlla na la yàlla waaye yàlla na la yàlla jiitul boppam. ommatal la boppam la boppam. ba àggale la. fa mu gërëm moom yàlla. te mu yàgg lool te mu yàgg lool nag. sëriñ bi sëriñ bi. li addina bi di wax. yàlla na nga fi yàgg. yàlla na nga fi yàgg. te wér te maa ngi la koy wax manit ndax mi ngi ci yëpp. ndax nee na loolu mi ngi ci làmmiñ yëpp. yàlla na fi yàgg te wér. yàlla na fi yàgg te wér. yàlla la ko yàlla defal. defal ñu ko defal ñu ko. defal ko mboolem defal ko itam mbooloo mu jullit. démb yabaloon nañ Pape Malick. ne démb yabaloon nañ Serigne Pape Malick. mu mu ñëw fi. jiitu si ñu jiitu waaye doyul ñu ñu ñu it ñu ñëw. xam naa dafa toll ci diggante sax. xam naa dafa toll sax ci diggante. ndekoon ñoo doon àndaat ndekoon ñoo doon àndaat moom sëñ Pape Malick. fa tabaarakallaahu. Euh, njaboot gaa nee na njaboot gaa suñu baay alhamdulillah muntaqa nee na mi ngi seedeel boroomam ni. mbégte mii ma am tey. mbégte mii mu am tey. néew na lool ci dundam. na lool ci dundam mu am ko. loolu na loolu daal lay tàmbalee ay kàddoom. nee na di teg nag di sant bu baax a baax a baax a baax teg ci di la gërëm bu baax a baax a baax nee na li jiitu ci suñuy warteef suñu wala fonk suñu mooy ñu gën a dollee fonk suñu kóllëre nee na li nga ko waxee woon rek kóllëre ak lislaam gi kóllëre ak bokk gi nag. ngeen xam ni incha allah. loolu yi daañ ko gën a dëgëral daañ ko gën a téye daañ ko gën a sàmm nee na loolu rek la dem incha allah nee nga yëg ni sëriñ bi suñu xol sedd na guyi yéego yi ak jataay bi. yi ak jataay bi. gis nañ ko bu baax. gis nañ ko bu baax a baax. yëg nañ ko itam ci suñu xol. nee na jaajëf si. nee na teg ci nag di sant sa sa bokk yu baax yi nga àndal yëpp. nee na di leen sant itam ñoom ci seen wàll di leen gërëm. nee na fa di teg ci di soññ suñu bopp bu baax a baax a baax. yéene xeebit li fas ne fas yéene xeebit li nga xam ni weesu nañ ko. ci li jublu nag ci li ñu jëm. nee na loolu rek la demee incha allah nee na loolu yàlla na ko yàlla yombal amin